والقلم وما يسطرون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 Euh, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre en charge du travail des relations avec les assemblées, chers honorables collègues député chers confrères aussi de la presse maa ngi euh, sant yàlla bu baax moom mi ñu defal taw tawféex tànnuñu ci sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di représenter dans cette auguste assemblée. surtout ci quatorzième législature bii nga xamante ni législature jaar na fi ba tàyyi mais je pense que ne ministre yi fi jaar yëpp xam nañ ne législature bi législature bu am solo la avec des avancées notoires où cette institution a été éprouvée jusque dans son règlement intérieur dans son fonctionnement Donc on n'a pas à raser les murs. Soyez fiers du travail que vous avez effectué dans cette Assemblée nationale. li nga xamante ni moom laa bëgg a wax monsieur le ministre de la justice mooy il est temps que ñu stabiliser définitivement nos institutions je pense que waruñu supprimer le président Diomaye Faye n'a pas le droit de faire comme les autres ñëw soo ñëwee supprimer pour supprimer dañu war a stabiliser définitivement les institutions pour mettre leen au service du développement économique et social du Sénégal je pense que le grand chantier de tous les candidats, de tous les prétendants à la magistrature suprême, c'était la réconciliation. La réconciliation des Sénégalais d'abord, mais la réconciliation qui Sénégalais avec institutions. Et je pense qu'il faut que la confiance revenir au cœur de, de, de, des, entre les institutions et les Sénégalais. Benen bi moy man Papa Djibril Fall ñew mo fi pour nek ventriloque wala caisse de résonance d'aucune institution. Aujourd'hui, Taïdi, les députés sont les porte-parole et les communicants du Conseil économique et social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si ces institutions faisaient correctement leur travail, je pense que Taïdi, Taïdi, nous avons waxal parce que nous devons défendre cette auprès des populations. Pas, le problème, ce n'est pas les institutions. Une institution n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage, tout dépend de je pense que Netaï, euh, il est évident que en tout cas, nekkuñu aligné wuñu aussi ci benn euh, ligne politique mais nekkuñu fi aussi pour défendre quoi que ce soit nous nous voulons que ces institutions soient supprimées nous votons nous allons voter pour la suppression de ces institutions mais damay paraphraser damay paraphraser benn directeur boo xamante ni le président Diomaye Faye moom moo ko nommé mu ne dites la vérité avant le retour du bâton Il faut dire la vérité au président de la République en voulant lui faire croire que 66 milliards ils vont régler les problèmes des Sénégalais. C'est archi faux. Un le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit. Un pays, ça se construit dans le temps. Mono, mono, mais Ismaël, il faut qu'on s'écoute. Mais non, non, demande le déglou, déglou Monsieur le Président, nous arrêtons. Non, on mais la politique, c'est deux choses. La politique, c'est deux choses. Avoir la capacité de convaincre et la capacité d'agir. Mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à s'écouter. Manfi, ken du Donc, il faut qu'on s'écoute. Dites la vérité au président et à son premier ministre. Et vous, vous êtes en train de faire comme les autres, c'est-à-dire avoir un mandat impératif. Ce pas la vocation d'un député. Donc, kenn mënuñ kenn mënuñoo tere lu ñuy wax li nga xamante ni moom lañ bëgg a wax donc dites la vérité par rapport aux 760 milliards yi nga xamante ni moom lañ la dama ne dama paraphraser seen benn directeur bu wax ne dites la vérité avant le retour du bâton il faut éviter le maquillage dites la vérité sur toutes les questions yi nga xamante dañu interpeller l'avenir du Sénégal dites la vérité sur cette fameuse loi bi nga xamante ni moom moo amnistie parce que aujourd'hui la délinquance galopante partout au Sénégal C'est parce qu'à un moment donné, on nous a parlé de forces spéciales, on nous a parlé de circulation d'armes lourdes et d'armes légères. Donc, aujourd'hui, nous avons les Sénégalais, mais d'où proviennent ces armes Donc, dites la vérité, dites-nous aussi la vérité par rapport à la lancinante question de l'ONAS. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le, ministre, le ministre en charge de l'hydraulique doit mettre le président de la République à l'aise dans cette affaire, et la meilleure manière, c'est de se démettre, Donc nous, on ira jusqu'au bout de notre logique qui est de contrôler l'action de l'exécutif, qu'on soit ici ou ailleurs, on continuera de faire ce travail. Sénégalais, dañu leen a yónni am ci yéen yaakaar bu rëy ba pare yàkkamti leen donc on n'a pas le temps pour le cynisme politique on n'a pas le temps pour le machiavélisme politique aujourd'hui tout le monde doit se mettre au travail pour permettre à ce pays-là de de prendre définitivement la bonne direction donc je pense que c'est ce di leen gërëm di leen sant merci. Oumar Souane Sissé, vous avez la parole, suivi de Astou MFAL. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.